billahi min ashaytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala seydina wa maulana muhammadin makin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokk yi nga xam ne ñu ngi déglu kàddu gi fu ñu mën di nekk ñu ngi ñëpp di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla mi borom tawfiq yàlla yàlla defal ñu tawfiq defal ko mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci àdduna ba na jullit ñi euh, ñaareelu tomb bi nga xam ne fas nañ ko ñëw ci tur yàlla yi di ko leeral wala di ci waxtaanee lenn loo xam ne dana nekk njëriñ xam nga génn nañ ci allah huwa moo ci war a waaye dañuy dugg roxmaan ndax tur la boo xam ne jàpp naa ne booy na ci noppi jullit ñépp waaye nag tur la bu am solo qul udu allah aw udu rahman ayyama tad'u wolen yalla yalla mi ngeen wo wolen ko ci allah wala ngeen wo ko ci rahman ñi naan ah yeen dal ciow li bari bar bari dal da mel ñaari yalla ngeen am udu allah aw udu rahman ayyama tad'u falawul asmaul husna nanu yeen ñew lañu jamm ben yalla te yeen am ngeen ñaari yalla lool man ta nek lool yefeer ñoko daan wax motax bo demé ci suratul israil ayat 110 ñu ko fekk leg rahman mom nek tur la bu am solo mo da waxone tour yeb mën nga ko delloo ci nit wala diko am ko koy moblé mu ci jéem dug wala ñak ci dug waye ar rahman ci yalla rek la mëna a motax mo tax noppalu euh jamm suñ ko tuddé da ngay dégg nga abdur rahman ci abdur rahman moy jamu borom yërmande ji nga xam da yaatu ci adina ba ñepp ñuko gëm ak ñu ci leen bok motax arrahman gaay nañ ko xoy di ko rahman nga dégg rahman ñoon ko rahman dañu yà ya-, dañoo dagg tur bi dañ ko dañu xassaf Abdul gi xabdu kenn war ko xassaf xabdu gi da war ñew pour mu mëna mat da ngay deg abdul hakim abdul razzaq abdul ghani abdul mughni yoyep man na am abdul quddus <laughs> abdou salaam yooyu ay tur yoo xam ne mën nga ko askanee nit waaye pour mu mën a sotti foo ñay ànd jamxu ngi nag mooy ibaad al abdu foo ko déggee mooy kenn moo da ngay dégg fii ci yenn saa yi ci njuumte yu bari dama ne di ibaadu nga rek mu mer <laughs> te moo ne jarul mer de ibaadu moom ko dooru yaakaar naa gisuma ko ab jullit bu ne doon ibaadu gisuma ko ñu bëri nag bari ibaadu jàpp na benn waay bi cëkkal tubéy la guddalub sikkin lu waaye wax ma ne dafa xaraam loolu mooy ibaadu déedéet loolu loolu suul mafhum la xam ne dangaa ñaaw ak dégg ci li nga nekk loolu moo ko indi moo tax eh, ibaad ibaad mooy jamhu bi mooy sama jaam yi moo tax mooy jaami yàlla mi borom yërmande bi kon mafhum bi dafa gën a yaatu ni ko nit ñu foogee waaye fii koo def ibaadu nga rek mu jàpp ne mooy ku cëkkal tubéy tubéy joo xam daanaka turu sa rakk sax sa tubéy rakk nga sol ko mel ni seen kër dafa taa eh, guddalub sikkin lu waaye wax nga ne hada xaraamun hada xalaalun nga jàpp loolu mooy ibaadu loolu njuumte gën koo rëy bu ci jigéen ñi jàpp ne kuy muuru rek muuru ba sa kanam gi du feeñ rek bu ne ibaadu nga dum ibaadu déedéet loolu ñu xamul dara koy wax rek waaye ibaadu moom ku ni ibaadu nekk ibaadu la ibaadu mooy jaamub yàlla yéen yàlla yéen jaami yàlla mi nga xam ne mooy borom yërmande ji baatu ibaadu rahmaan loolu lay tegtalee moo tax la ci aaya bi lam ca wax jàpp nag ko diglu ba mu feeñ ba mu jeex da nga xam ne ibaadu ni ko gaa yi foog ak ni mu doxee du benn moo tax waaye ibaadu rahmaan allazina yamsuuna alal ardi hawnan ñoom bu ñu dew ci kaw suuf dañuy dox ndànk ak tey wa itaa wa iza xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaama bu nit ñooy bëgg a indi fitna ñu ne ko sëñ bi garaawul ñun jàmm lañ indi kooku mooy ibaadu rahmaan ba aay bi ñu ne seen alal duñ ko def fenn faam dañ ko yàq lam yusrum walam yaqtulu ta dun ray nit dun wax nit lu ñaaw ko xam nak yaa ngi ci sa lam ñu baang ci dara julit ñi fo tollu di ci wax lu ñaaw nga ay baat du nga bëgg mo moomale baat bi sa bop yaaka mo ngi wax yàlla mo ko yàlla julit ñëpp la ko momale fu waay nekk te nekk ci lu yàlla wax ci aaya boobu yow ibaadu rahman fu waay nekk te nekkoo ci lu aaya boobu lu yàlla wax ya boole sa bop ci ibaad yi waaye boole wala ci ibaad yi motax ñu bari dañu genn dañu genn bu yàgg ñu bari genn nañ ci mbir mi nak mo dañu bëgg leral batul rahmaan rahmaan nag waajaxa kulla shay'in moo tax boo demee ci alquran bëri na baat yi niñ mu ci ñëwee ak ni ñu koy leerlee nga xam ne rahmaan kenn jagowu ko kurul yàlla kenn jagowut arrahmaan keneen koo xam ne niñ koy waxee ku mën a dellu kurul yàlla amut moo tax baat yi ku koy sikar loo bëgg mën nga ko am yaa rahmaan yaa raxmaan mooy yow boroom yërmande ji nga xam ne daa yaatu ci àddina wërngal këpp ki la gëm ki la gëmut ndax fi ñel ba àddina fi mu ni muy doxee nii daanaka booy xool sax nga xam ne ci zaahi dañuy wax ne gëmuñu yàlla yàlla amul sax ñooñu la yàlla gën a teral picc mi nekk ci àll bi di naan mu ngi ci yërmande yàlla picc mi nekk ci biir kër gi di naan ci ndox ma waaye ci dugub ji di ci lekk mu ngi ci yërmande yàlla melentaan bi nekk sa biir néeg di wut lu mu lekk ci ci raxmaan na dugg moo tax wa raxmati waaye sax kulla shay'in mooy yàlla sa yërmande ji moo gën a yaatu luy yaatu yàlla nag dafa am ay yërmande yoo xam ne mat na téeméer waaye benn bi la wàcce ci kaw suuf yaatal ko ba nekk ci diggante baynal naasi ak baynal insi wal jinn nga xam ne ñëpp ci xaj nit ak jinn xaj na ci malaaka yi melantaaneeg fas yeeg lépp xaj nañ ci kon arrahman mooy koo xam ne yàlla yaatal na la nga nekk ci li nga xam ne moom la yàlla bëgg wala nga ñàkk cee nekk yaa ngi ci arrahman moo dañuy wax arrahman mooy borom xéewal gi nga xam ne moo yaatu ci àddina ba ñu ko gëm ak ñu ko wedd ñëpp a ngi ci arrahman kon arrahman tënkuwut fenn moo tax ñun ñëpp ñu ngi ci yërmande yàlla ji ñu gëm ak ñu wedd ci yem nag ñun ñëpp ñoo bokk yem ci arrahman ñun ñëpp ci yéeg fas yeeg mbaam yeeg yépp ñu ngi ci arrahman ba ci garab yeeg yépp arrahman ci lañ dugg kon arrahman kenn mënu cee génn boo sa bopp fekk yaa ngi ci kaw suuf di dund kon moo tax arrahman dafa nekk lu am solo ci jaam bi nekk loo xam ne ku ci tënku yàlla mën na dimbale moo tax euh, dañuy wax ne képp koo xam ne yàlla nattoo na la nattoo na la nga am aayo te faju japp naa ni boo fekkee jël nga arrahman wala yaa rahman sikkar ko te sa aaja fajut jàppal ni du ci tur bi waaye ci yow mi sikkar tur bi di wax sa aaja fajut ci yow la nekk léegi nag yàlla moom yërmandeem dafa yaatu moo dafa am yoo xam ne yàlla suñu borom moo ko yoral boppam gis nga doomi aadama yi ñenn ci ñoom bu leen yàlla dénkoon lenn li wallaahi bi dana naqari moo sun borom day wax ne na ngeen xamne ne xéewale naa leen lépp loo xam ngeen mako te sumu ngeen do leena lim luma leen jox waaye wa in ta'udun ni'matallahi la tuhsuha inna Allah la ghafur rahim moy bu ngeen don lim leen yalla defal mo leen ko tak waaye wa in ta'udun ni'matallahi la tuhsuha la wa kon rahman day dugg ci mun leen takk ci leen yàlla defal mooy leen yàlla defal ci kaw àddina bi mun leen ko takk mun leen fay nekk naan yàlla ma defal yàlla lii déedéet mënoo ko takk ndax fi image toll imaginer xëy noyyi te kenn laaju la facture bi ngay noyyee weer bi lii nga noyyi da nga ko war a fay soo ko fay ñu dagg ko loolu yàlla doxul noonu ak wér mu jox la ko ngay wéri dox sa soxla ba liggéey ba am alal loolu yàlla laaju la lu la laaj moo sax temps bi ci nan nga koy jeexal moo tax raxmaan dafa yaatu yàlla mënoon na ni kum ne jullil boo julliwut mu rëq sa ndigg mën na ko am na ko mën na ko am na ko sagam doomi aadama yi yor seen entreprise képp képp ku leen teg ci barab ba bu jàdde yoon bu subaa boo xëy ñu bind lettre dàq la way laa ñu def lettre pour jéela fi kon doomi aadama yi noonu la leen yàlla tënkee ci kaw suuf yàlla noonu mënee na ko noon waaye defewu ko noon waaye loolu lu koy xamal mooy raxmaan gim gi làmboo mooy yërmandeem ji nga xam daa yaatu lool lool lool ba ki koy gëm ak ki koy weddeeg ñépp ci bokk yam nonu la mën a muñee lenn nga diko def mu xam ne jaadut mu lay xaar bisam ci bisi mo do ngay dig ñaan sacc bu dal jor yaqina na loolu yàllaa ko mom yalla xamna ni ne jaamam bi lu mu def lu garaw garaw mën ci yalla yalla ngi taxaw ci barab ko xaar buy faatu luñ wax nañ ko yëti boromam nañ ko denc jébal ko borom kon jébal nañ ko borom léegi nak yoy sacc bu do bo mëno raw kon fi li ko sacc sàcc bu do doomu aadama sàcc mën nga rëcc motax yalla yirmandem ji mom kesse moko yor deng ko kenn ci misaal lu aju ci dund ak dee gis nga dund ak dee bu ko doomu aadama yoroon am na ci ñoo xam ne kun mere bu subaa day buñ la meree ci saa dañ lay reebu ndax am na ci ñoom tey ji buñ la boo leen defee leen naqari lépp lu ñu xalaat ne lu bon mën nañ la ko def pour ba la nga def ñu def la ko am na ci nit ñi am na ci nit ñi bu baax a baax a baax lépp loo leen def ci safaan lu mën a def pour fay nañ ko def xanaa nga dañuy jéem a jéem a jéem a jéem ba sonn mënuñoo ñu bàyyi ñu ne bàyyi naa la yàlla foofu nag yàlla day toog di seetaan gis nga yalla bu nan bo nan bàyyi dal diw ak yalla day fekk bala bala mbir mi dalé ci saa nga na diw ko togn nga ma ya li ma togn sama ak la jël yalla ma ngi lay talal di la ñaan diw mi togn ma yalla nga ma atté mo lool ala kulli halin kep ku nit togn nga def lool wallahi asim bala mat ab diir yalla atté len amul sama dem dañu waxuma nag nga dem fa nga dugg fa nak lu nga def ko fa nga jambar ko fa bo amatoo benn solution ñi nga dem amul benn solution nga toog naan waaw bàyyi naa la yàlla yàlla day toog si daan yàlla day toog